برأني باغي من الأمراض وكب من أنكر باهترادي لو ذكوري على آياتي عبدا قديما فاس بنعياتي أذكر أجر الذين شربوا من عزبه وللجنان خرب حزت آياتا لا ترى لخيري معجزة بانت لحسن خيري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي jullit بوكي bokki بوكي yi bokk yi جاكارلو xam ne ñoo ngi jàkkaarloo ak cheikhibrahimafall.com te jëwriñ ji di sëriñ Mouhamadul Fadul Fall moom sëriñ Aliou Fall moom maam maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen bala àq te di leen ko baal. di am mbégte di àndaat ak yéen ci jataay bu am solo boo xam ne mënees na ko tuddee jataayu murit jataay bi di amee fii ci kër sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou moom sëriñ Touba Xaadimu Rasul ñu fas yéene taatan ay kàddu yoo xam ne. dana jëm rek ci fàttaliku wala jàngat wala waxtaan ci dunduk jàmbaar joo xamante ne bii mën nañ ne bi sëriñ bi nekkee ci bunt bi sunu yaakaar jëpp ne ci biir ne bi sun bi sëriñ bi nekkee ci biir nee bi sun yaakaar jëpp ne ci biir nee bi mooy ki ñu ubbil bunt bi ba bañ mën jàll ci biir ba mën a jariñoo suñu yaakaar joojee koke mo di maam Cheikh ibrahim Fall Lamp Babul Mouridine xam ngeen nak nag murid ci keur Serigne Abdou Samad ni ngeen ko miinee de gis wala ngeen di deg dégg moo di alquranul karim ak qasida Cheikhul Khadim, yi ak berndey Serigne Touba yi ak waxtane mak ñu bax ni lolou motax li ngeen jëk jaakarlo ci image bi modi di daare ni bi nga xamne xey nañ ko jang ñetti yoon gontu ko jang ñetti yoon mu yam wara andal waaye bu ñu noppee kaamil bu alxuraan bi ñu ciy teg def ko addiyee seexul xadiim ak gaa yu baaxam yem àndaloon bu ñu noppee nag berndey murit daal di tàmbali ñu daal di tàmbali nag waxtaane kenn ci magi Serigne Touba yi tey jii nag Serigne falilu Fall moom sëñ Aliou Fall Mbawor tànnoon ñu waxtaan wala Serigne bi baaxee ñu ay kàddu ci jëmm ju tedd jooju di maam Cheikh Ibrahima Fall loolu moo tax ngeen dégg Serigne Abdou Lahad Seye Gueye yëkkati xasida googu nga xam ne. yëkkati xasida gu am solo googu ginnaaw ba mu daanelee da ngeen déggaat ci biir e, yeneeni bayit yoo xam ne e, sëriñ mus e, sëriñ mbay jaxate dana ko faral di soññe incha allahu rabbi waaye mel ne sëriñ bi dafa wax ne bu xamee kan mooy sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Aliou Fall moom maam Cheikh Rahma Fall nañu xel dem itam ci way juróom mu sell woowee di bajan soxna jaxate moom sëriñ Amsatu jaxate ma nga xam ne Serigne Touba noona ko woon du ma la réer fii du ma la réer fële fu ma nekkit may naan la nga fekk ma fa yaakaar naa ne nag kooku ku meññ lépp loo jege sa yitte jëmee ko ci liggéeyal Serigne Touba ak di xeex ak noon yi nga xam ne waxtu ne ñi ngi jéem a tibb suuf di ko xëpp ci ndab li kooku day loolu warteefam la jataay bi nag day mel ne doomi seex yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne rek ñoo wër sëriñ Abdou samat nii kon yaakaar naa dañuy bayyi ak sëriñ bi mu tambalé ñu sunu waxtaan euh taatan ay cadre ak sëriñ bi ci soppe bi yoon wi muy mam Cheikh Ibrahima Fall te gis nañ lu ëpp ci say wax danañ gis nga di ci faral di di di di duggu wa kon kon damay barkeeloo rek serigne mustapha Diané bok ci njabootu serigne Abdoulaye Diané mom serigne Touba xam bu fekk feggoo ak sëriñ Cheikh Bàcc Diop bokk ci njabootuk sëriñ Mbàkke Diop Kalsaan moom sëriñ Ibrahima Diop almasari yi feggoo ak njabootuk Baye sëriñ Ndiaye Guédé feggoo ak ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ Touba sëñ Moustapha moom dana ubbi ñaari kàddu rek ñu jox sëriñ bi mu waxtaan ñu ci jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall euh, bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuy bu baax kenn ku nekk ci turam ak santam di leen siyaar xanaa rek di xam le ne kon nañ taatan te ubbi xol yi fas yéene diglu sëriñ bi te tegtaloo ci li nga xam ne moom la sëñ Fallou Gallas Syll la wax ci am Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy Baabul Muridina te it Baabul Muridina ji ñi mu àndaloon ci sëriñ Touba ñoom nangul nañ ko ko eh, bokk na ca ki nga xam ne moo tax ñu jox ma kàddu gi muy sëñ Ablaye jaane daana wax ne ku yaakaar sëñ Touba ku ne war ngaa jox Cheikh Ibrahima njukkal fii ci àdduna ndax boo ko joxul njukkalit boo demee ëllëg loolu sëriñ bi mën a fayee bala nga caa jot njukkalu Seex bi dana ca génn kon nag kon bu yàlla dogalee ñu toog jataay sëñ tubaa ndax kër gi kër sañ tubaa la ndax ki ko fi nekkal doxinu sëñ tubaa ci lay dox waxi sëñ tubaa la bëgg ku ko fi wax teeteeg sëñ tubaa la fi nekke kon xanaa nu bokk diglu ko taatan fas yéene mën a jariñ ci ay kàddoom Euh, bépp jataay boo xam ne nii kaddu gi yegsi na fa it ñu fa yéene man a jariñu ci nekkiinu sëriñ bi di sukkandiku ci ay kàddoom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Euh, sëriñ Moustapha xam nga ne jataay bi noonu ma koy waxee jataayu murit njabootu sëriñ Mouhamadou lamin gay ñi ngi fi toog euh, sëriñ Abo moom sëriñ Cheikh moom sëriñ moom Cheikh May sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Cheikh May mu ngi fi toog moom itam. feggoo nag ak sëti sëñ Tuubaa yëpp kon sëriñ Cheikh Bàcc waaw ak sëriñ Modou Modou Mbacke moom sëñ Maam Mor Pakala ah nga xam ne waajuram wu jigéen sëriñ Soxna yi boo ko jur muy soxna maam Dieng Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi toog ci jataay bi. sëriñ seex Bàcc yaakaar naa ne bu ñu waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ne waa kër sëñ Ibrahima Diop almasar yi ñu ngi fi waa kër sëñ Abdoulaye Diané ñu nga fa waa kër sëñ Modou Lamine Gaye Firdawsi ñu nga fa yaakaar naa ne du ñàkk ay kàddu yoo ci yëkkati. laata ñuy jox serigne Abdou Samad ci jotaay bi fekk giñ ko fekk rek ci turu euh ñi nga xamne moy mooy serigne Ibrahima Diop almasar yi gépp waaye rawatina waa kër serigne bakay Diop kalsan yu bet na ma lol ay nak digal moom jëf rek ay nak ki ñuy wax lo nak mom manas na ci jëm wax ndax man maam Cheikh Ibrahima Fall maam Babou Moussa sëriñ bi de bari nañu ko fa jiitu lool waaye nag ba mu ñëwee ba mu ñëwee nag la lay xew-xew li xew mooy lan liggéeyal sëñ Touba bu toggee ci kaw nga toog suuf boo ko jubee raam liggéey joxe nga xam ne loolaa taxawal jumaay sëñ Touba yi liggéey joxe moo taxawal jumaa ji loola moo ko fent kon dërëm bu waay yëkkati jox ko sëb sëriñ addiya wàllu Cheikh Fall maam Cheikh Fall génn ci bu te yaakaar naa na mu la dëgg la wóolu sëriñ nag xawma kooku gën a def ndax ña ko seereel mooy sëñ Abdourahmane Lo ak sëñ Bakki Bousso ñoom benn lañ woon ñoom ñett ñooñu buñ ma saa bokk yenn suñ néeg bu dee benn la lal ba kenn du ca toog ñoom lijjantuñu woon lu kee di def ak lu kee di def ñoom li ñuy lijjanti mooy sëriñ bi leen boole rek lañ lañ lijjanti la ca des lijjantiwul ma kooku nag dégg naa ci ku ma jege mu ne sëriñ bi dafa yónni maam Seera Fall marché Ndoumbé Diop ab tiise mu dem jënd ko indi sëñ bi téye ko na ko loo ko jënde mu ne ko ah amatul njëkk ndax laal gi nga ko laala tax Assalamualaikum. Cheikh Massamba eh, yaakaar naa ne nee nga kàddu gi bett na la waaye jekku nga ko yaakaar manisnya ne kàddu yu néew na waaye mënees na cee bari jëriñoo lu bëree bari sëriñ xa Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Khalil moom sëñ Fallou mi ngi nii si jotaay bi moom itam ñoo ñëpp di bi ñu jàkkaarloo ak tuut tànk yi nga xam ne bu ñu bi da di ci diggante soow café biscuit ak li ko ne bëgg ay tàngal ak yëkkati weccat di leen jox gis ngeen ñi ngeen jàkkaarloo léegi mooy woy néew doole yi nga xam ne fu ñu lañuy ñuy bàyyi ko ci tuubaa di ñëw ci moom di sàkku ndimbal kon loolu mooy li nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala nee na woon mbindeef yi ñooy sama sama sama njaboot ku ma wuuti ci ñoom ma wuutu la ci say soxla kon Serigne Abdou ñu taatan rek ay kàddu ci sa maam ju baax joojee di maam Cheikh Ibrahima Fall sa talibé bu mag bobu nga xamanteni bi leppam joxon nako sa mam ja di Serigne Touba Khadim Rasoul kan ne kaddu yu néew na waaye mënees na ci bari jarino lu bari bari Serigne khadim abdullah Lahad mbake mom Serigne Khalil mom Serigne Fallou mi ngi nii si jataay bi mom itam ñoo ñep di njabootu Serigne bi ñu jàkkaarloo ak tout tank yi nga xane ne bu serigne bi da len di berndel ci diggante soow café biscuit ak li ko ne bëgg ay tàngal ak yëkkati weccat di leen jox gis ngeen ñi ngeen jàkkaarloo léegi mooy woy new doole yi nga xam ne fu ñu lañuy bàyyi bàyyikoo ci Touba. di ñëw ci moom di sàkku ndimbal kon loolu mooy li nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala nee na woon mbindee yi ñooy sama sama sama njaboot ku ma wuuti ci ñoom ma wuutu la ci say soxla kon sëriñ Abdou ñu taataan rek ay kàddu ci sa maam ju baax joojee di maam Cheikh Ibrahima Fall sa taalibe bu mag boobu nga xamante ne bii léppam joxoon na ko sa maam ja di Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi nuyu bokk yëpp di siyaar yëpp di bëgg lool ci sama mbokk mi di Sëriñ Fallu di sama doomi bàjjan ndax soxna jaxate moom sëriñ am satu mooy waajuram te kon a xam na sëriñ am satu ni mu demee ak sëriñ soxna boog sëriñ Abdoulaye moom kon cër boobu mu am ci man rek war naa tax lu mu sàkku ci man mu yomb mu dolli ci nag cër bi mu am ci yoon wi nga xam ne moom ñëpp maa ngi ñëpp ko bokk muy Seex Ibra suñu Aliou Fall Mbawar di waajuram kon nak dima ci top ay weeri weer bëggoon lu mu dallandikoo ci jëmm ju tedd joju xamna dama ma taxasus nag ci mëna wax ci mom tax cheikh Seex da fay ko naqaree wax way dal doyna rek sëkk liggéey bi gën a ñor Serigne Touba. nga xam ne kenn nattabliwu ko mooy jumaa ji da ko sëriñ Fadilu defee ba noppi sooroor bi ci gën a rëy màndargaal jëmmi dëkk bi nga xam ne foo toll di ko gis bi mu noppee dafa wax ne moom la koy tudde daal di jaar ci turam wo si wo moy Lamp fal parce que fal nak nag bu liggéeyee sëñ Touba liggey bu nii ak ñi ko seq ñëpp ak ñi mu jëflanteel ñep mu xol xol ba tan ko ci mom dara jaale ko tuddé ko lolu mm-hmm. loolu symbole la mandar la ci dayop jégué gu cheikh ibrahim jégué serigne bi ak ciir bu mu am ci mom xamna dana xat ci waxtu yi ndax timis jege na waaye ñu teunk rek ci lenn nat ci yuma fatali ko dekk ko ci sunu serigne su tedd soosee du sunu wajur ben ci serigne salih wala serigne Soaybu wala serigne Abdul Ahad wala serigne Abdul Qadir radiyallahu anhum wa nafaana bihim maa ngi fàttaliku benn bis fii ci këram kër sëriñ Abdul Ahad gii ci dëkk bi waxtu marax ñu toog muy waxtaan ci sëriñ bi ba agsi ci mbirum seex bi daal li wax ne sëñ Fallu moo ko wax ne ko dafa am bis sëriñ bi ne ko boo xëy boo xëyee na nga ñëw ci kër gi moom sëñ Fallu ndekki bis boobu da ko wax seex bi ñoom ñu tasee ndoo fa biñ dikkee ba nuyo ba tok serigne bi genn ab keul keul wén def <clears throat> ci ndawalu ganar dal li wo serigne Fall lu mu top ci mom monako keul bi demal yet ko Ibra Fall te ngeen te ngeen xewlu ci ma ngi ñew mu dikk ne ko Baye Cheikh Baye Cheikh serigne bi neena ñu bok xewlu ci li mu ne ko ah, xanaa yaay xewlu ba noppi nga jox ma ma barkeelu ci xaj du bokk ak borom mais suñ fal nee na ma def lu ma man ndax li ma ko sëñ bi digaloon bëggoon mu bokk ak man waaye mu gàntu rek dëgër ci lool ne ko daal xaj moom dem seq ak borom ba mooy mu lekk ba noppi xëpp sànnil ko ca gaal ga mu xëpp waaye sequma ak yow di bokk ak yow ndab nee na ñu tàmbale fa waxtaan nee na sëñ fal ne ko waaw yow mi nga xamne nak buñ ko don xam-xam nga te yaa ngi ànd ak mom ci bu yag ba nëgëni da ba nga wax ma lan soppi ku ci ba nga ko xamee ak mom ci léegi mon ko xana ah, bi jaw bi jaw bi la gis lu dolli ku ci mom waye bama and ak mom ci mbacke ko yor ba tay ji ci gisuma ci jaamu yalla gi lu ci ko wala ci wala ci farlu gi wala ci lenn ci moom ñu mën ne dolli ko ne ci ludul bijaaw bi ma ci xamutoon te xam ko ci léegi. waaye sëñ Tuubaa moo ma xamoon ci Mbàkke Kajoor ma xam ci njëriñ. nee na sëñ Fallu njëkk a noppi bàyyi muy xewlu mu dem ci sëriñ bi ne ko noppi nañu. mu ngeen ba noppi mu ne ko ah, moom bokk ak ndax xaj bokk ak borom ba wax naa wax mu gànt nee na bi tontu ko la mu tontu woon sëñ Fallu ne ko ci Ibra Fall Mbàkke Kajoor ma de mooy moom tey mi rek. allahu akbar ca dégg naa it sëriñ Sonia bu di nettali benn bis ne sëriñ Cheikh bi dafa ñëw ci sëriñ bi waxtu koor sëriñ bi di jàpp taatan jàpp yi ñu ci ab këll mooy këll boobu mu daa yoon rek am nga sëriñ bam dafa fonkoon këllu wéen bi mu ne ci géej gi waxtu wu ne këll baa ngi ci wetam mu daal taataan jàppit mi bu noppee jox ko nak nag Fall bo demee bu dog joté nga dogé ko ñu mm-hmm. génn and ak suñu yaaram bay waaye yaaram téyel ma sama njàppit ni suñu yaaram téye ko ñu ngi dox touti mu ne ko yeen ah, ku yor bi da ngay dem ci kanam kenn wul la jitu ñu <laughs> mu jitu mu top ci mom nga ormal mal mm-hmm. mu ne ko ah yaaram njàppitum suñ Tuubaa ànd ak mom dima jitu sax wuur da nga wara ñew ñu dem rek ñu mu ji lang ak mom man ma nga yaaram taxal moon la ñuy def njàppam suñ jox ma moon la mu jox mu àgg suuf ne ko secc naan dal këpp këppoo këlli bi doon na ko nii lañ koy def moo gën a wóor dégg naa it suñu son bi mii nga xam ne dañ koy màndargal ci dañ koy màndargaal ci defe ne ku ku ku la ko xam dafa tàng diine wala ñu jàppe ko ku ku ma wax la ne ku fonkoon Seex Ibra te accepté ko te nangul ko lool sax te dégg naa yu bari ci moom laa ko déggee bokk na ci yim doon yéem ci lu mu wax ci làmmiñ wi nu muy dëpp nu muy dëppoog dogalub yàlla muy wax ne si ñaaram mbay dafa demoon soldat quartier nee bis biñ ko ko tàggee bis biñ ko ko waxee ne ko ñibbisi na dana yaaram ñibbisi na ñu ne ko amu ko ah loolu du bokkut ak la ma déggoon noonu laa dañ ñamoon fett la koy ray ci ah, ñew na ni rek ñu ne ko amu ah kon baax na bisimilah ku ne xam na ne ba gannaaw bi bi Seex Ibra demé ab diir la yaaram dooro dem waaye ci fatal la faatoo ndax dafa rax ci kaw eh illa li sey sama di joxe message ci wilaayatoom dégg naa it mu wax ne fii sëriñ bi nekk ci njaareem néeg bi néeg bi mu mujj nekk ci zahir nga xam ne néeg Seex Ibra Fall la sëriñ bi dadaa wax ne buntu penku bu moo kaaba gi jàkkaarloo moom la ko defar la woon dafa amoon buntu penku sëriñ bi danaa wax ne suñ borom moo ma wax ne liggéey bi Ibra Fall liggéey bu ma liggéeyatee ba ngoon naa fay noppaloo waaye xamal na ma ne xalaawatul jannati foofu laa koy njëkk a mose mooy bànneex àjjana waaye na mu ko waxee nala deme demee bis biñ ko mujjee gis ci saaxir xëy googu mu jëmbataloon boppam ba toog fi toog na fi midi jëm midee demi ab taw bu ndaw fekk ko fa mu jóg ci taw bi dox dugg ci néeg Seex Ibra boobu foofu lañ ko mujj gis foofu lañ ko jëlee indi Tuubaa kon nag taw feex a ngi ci tàmbalee ci liggéey boo xam ne fale sëñ bi mujj nekk ci àddina ba ba dem déyale jëg boroom loolu nangu nangu bu sëñ bi nangu jëfam ah. bokk na ci yi ma daa yéem ci ku mel ne sëñ sa sëñ Saalixu mi ni meloon ci moom nga xam ne mënta wax joom ñaari baat yu àgg sax te gisoo ay rongoñam waye dégg naa mu ci yéem ne Cheikh ibrahim bokk ni seigne mujj woolu am sax lu mu ci yem ndax ne gaaw bi seigne bi mujj wootee waxtanu reuy rëy nga xane ne takkusaan la tambali ba gannaaw ge dekk bepp daje neena na na wolu Cheikh bi neena bimu bi da fek ci fekk jot seigne bi julli neena Cheikh ibrahim na ci julli gi wa julli ne te neena ku ne xamne timis buñ la ci rawee dafa xaw a naqaree fay waye neena li tax nga xamne Cheikh rafaqi la da ko fay ni ko nit ñi fay <laughs> am na ci julli timis googu te biñ ko rawee fay na nit ñi fay loolu si bokk na ci li si cari day yëm ci moom moom nag bokk na ci siñ bi daa misaal ne bu dee jigéen mu ne diw waaye bu dee góor mu ne Ibra Fall mii mu ne bu dee Ibra Fall moom laa njëkk a gis ci koo xam ne bu ma ko wooyee sama sant lay wuyoo. Mm-hmm. bu ma yónnee it mën a di daw ci moom laa ko njëkk a gisee. daana wax ne itam Ibra Fall defaluma lu ma kenn defalu waaye damaa def ni ma yàlla def. Mm-hmm. moom bu dee ab jox jox rek. Mm-hmm. di sukkandiku ndax ku ne defal na ko lu ne. waaye nee na ni ma yàlla def dama ne def. <laughs> <laughs> <laughs> yàlla def nag mooy coobare yàlla. am na bis sëriñ Mbacke Fadiama yàlla na ko yàlla yërëm nettali na ma ne soxna Maymunatul Kubra radiyallahu anha um Cheikhul Khadim nee na ko am na bis mu ñëw fi sëriñ bi sëriñ bi di waxtaan moom ba egsi ci Seex Ibra mu ne ko Maymunatu dey Ibra Fall li tax yëmut li tax yëmut ak kenn ci man dafa bàyyi boromam bi ko bind. lu naqari dëgg la dafa bàyyi boromam bi ko bind bàyyi bokkam bàyyi boppam jàpp na waaye nag danaa ko defal ci jëmmam ji lu mënalul boppam. boole koog ñoo xam ne ñoo gën ci moom ay bokkam. womat ko it ba ci loxol borom. mu delu ne ma soxna Mayit nee na ko mo wax de hmm. ma ngi si barsax dama koy fekk hmm. mu ne soxna may mu mag ma gis Abdul khadir hmm. moko ne ko bi sawara dafee ñëwoon fii ci man nga sawara ak aljana ak yëpp ay mi def ñu yalla bind deug la deug la dañuy wax ak sëñ bi ni bis yi wax ak mu ne sawara ñew fi di jambar rek ne dal suñu borom da ko digon ne ko la am la an jahannam jinnati wa nasi ajmain bay boo saxel dal danaa la feesal del dama la bindee ngir ngay lakke danaa la feesal del ci nit ak i jinne bañ fees te nee yoon wi ma aw bu ñu ko bayiwut yëg ne la ko suñu borom diggoon du am ndax nar ta fees moom sëñ Tuubaa waaw mu di ci jàmbar nee na ba mujj ma ne ko toogal toogal te diglu ma rek bu ëllëgee danaa seen ñiy di ngeen mbirum Ibra Fall ak waa këram ma fecc lee la ko la ilaha illallah auzu billahi mina seytaane rajiimi sëriñ bi kenn la maasum maslaam te du am moo jiitu sang ya des fois digg ak lu ñu gis mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni seex ibra faal ak ibra faati nu gis sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a xëy da jëbis te dikki def ni nu def jëbbal ko seeni kurus day yokku diine di fal wërsëg di guddal fan di fekk lor kër kër ak tar ku weddi na mos ku mos mosati ko ngir suukar la waaju ko mos mosati faaw mosal bul faale yow ku la xas ku fas ne bamba sa maasum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëmm dem làmbar na lil suñu gis barakallah barakallahu sëriñ Dame Samb kon ñu àndaat ak sëriñ bi bu dee ci wàllu bu dee ci wàllu zahir nii rek bok na ci ñinga xamne bi señ bi démé ci géej gi seen itte jëpp jëpp jëpp mo doonon bu señ bi ñu bisé mu jaral ko dal di tuxu dem ndar daanaka fété tambali politique hmm waaw tambali politique jaxasoog tubab bi tambali sax di neexal soxnam jaxasoog moom di ko ay xar diko andil ay ganar soxna tubab waaw neexal ba min ko ba tubab bi mujj doon xaritub cheikh ibrahim te moo gën a xam ne tubaab bi bokk nañu kalaami sëñ ba ñëw ba am ñum jaaxal bañ eggee ko mu ne leen bëgg a miinanteeg moom ba ba ba mën a wax ak moom ba layal sëñ ba mu xam ne tooñut kenn bañ indiwaat ko rek laaj ju bu ma ko defut du may ma wax ak moom waaye li li mu ko daa jox ci alal ak di neexal sax kenn xamul nu mu toll ba dafa mujj correspond xam nga ne sëriñ bi am na lu jege juróom at yoo xam ne kenn xamul ci moom dara foofu sax danaa fi wax lu yéeme ndax juróomi at yooyu suñ bi dafa nekk euh, foo xam ne juróomi at yu mat déggut ko dégg wolof baatu wolof rek déggut mu am bis mu toog ba mujj mu dégg ku fa romb di wax di wax di wax baat baatu wolof suñ bi daal di génn yor xalima gi nii fi bindee daal di ko yow dafa mel damaa dégg ngay wax wolof mu ne ko waa wolof la mu ne tudd mu ne ko Abdoulaye Ndiir foo dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko foo dëkk Sénégal Kees mu ne ko na xam nga fu ñuy mu ne ko ko kay ko ne xam nga ko dafa siiw mu ne ko sama taalibe dama la caa bëgg yóbbante ab bataaxel ndax bu la ko joxee da ko ko naa la ci ak yeneen i bataaxel yoo xam ne boo ko joxee dana ko jox seen borom ci liñ njëkk xamaate nag ci sëñ bi dara mooy lettre yi ñu bind sëñ borom saam Cerno ak ñëpp ci lañ xamaate sëñ bi lu wér waaye boobu moom ku amutoon ngëm-ngëm jàpp nga ne sëñ bi nekkatu fi ndax tubaab bi dafa bokk ci xeex bi ñoon xeex sëñ bi correspondant yi war jëm si fii dañuy fexe ba dara lu jóge sëñ bi du fi ñëw lu jóge fii dafa dem bis boobu la seex bi na jëkk mujj rek mu may mu jaaxal ñëpp nas ku wax bi dafa mu ci ñu bi Cheikh ba dafa wut ak pan gu mak duy ko am ndox mu nuyoo rek mu nañ mako ci duggal moom jëmi waaj waaw. Abdoulaye ngir gan la xamagul li xewaay dañu dañoo jékki rek japp ko duggal ci pan sang ko bam set mu dal li ba ndox mi Cheikh bam ndox mi naan ci ba biram fess mo mu xëppoo la ci dess daal li gësam bab bi do naaw kay fi jóge suñ touba ni dañ koy def waaye yemu ci nak dal ko ci kaw lalam bi tok fi suuf nga xam ne rayal koy xar wala njaboot gépp ñu di tàmbali ko siyaare mu daal di seex fi sansa ñu di ko gën aku toyam aku toyam kay ah, da koy daal di gën a set dara du manqué ti mel lépp seex rek xam naa du daal di seex di waxtaan ak moom nag mu dal ko ci la ci la nit ñi seen ubbi ko lu dul ku mel ne Thierno ma nga xam ne moom sëñ bi da ko njëm li ñuy wax njëmmeer. waaw mm-hmm. bañ ne sëñ bi génn àddina ba mu jaaxle ci am ñuy jàmbat ñett ñuy jàmbat ñoo xam ne suñ sant bi lañ yor. te umpale sëñ bi di wax naan nu ñuy def léegi xam naa léegi seen yoon bi tas. bay boo Thierno di xëyal sëñ Mor tey gontal boppam ndax surga rek la ba Thierno di kii néegam dafaa fekk mbind mu tooy xëpp sëñ bi xonqal seen i tur nañu moom duma seen morom. damaa ne ci xalwa rek. yow mu jeex mu jeexee ma génn. ko moom dafa ubbi boppam mu xam la xew. Eh, bu dul loolu nag ku ci mënul noonu rek jaaxle nga. ndax kenn amul lenn lu wér ci moom. bu loolu jàllee nag ba Seex Ibra nekk di politique ak tubaab bi. ngir nuñ indiwaatee sëñ bi ba bokk na ci ñi nga xam ne ci saahir nii rek ñi defi pexe ngir ci saahir mu mu dellusi ci la bokk. Mm-hmm. te yàlla may ko tawféex yi nag tubaab bi nangul ko. correspondant lu mu bëgg yónnee sëñ bi fu mu gën a gàtte la koy la ko tubaab bi awale mu gaaw ci man a jot mm. yaa na mujj na muy am tawféex di wut ay yéere baraayak ci lay baraayak ak ay ay xar sax daana ko defar di ko yónnee sëñ bi mm-hmm. mm-hmm. foofu sax daa feex lu yéeme ndax fi ne boo ne ab bay Fall da ngay defee ne bay Fall mënta jaxasoo tarixa yi ci des mm-hmm. ndax niñ ëppale ci sëñ bi ak niñ ci mel waaye ngeen war la Seex bi ku diplomatie la woon ku silvisé la woon ku nité la woon ci sëriñ bi rek la dof réseau sëñ bi moo gën nit ñëpp dëgg la ci biir loolu xar yim daa bagus ci ndar day seet El Hadj ba gis ko jàpp ci loxo bi ñu sa mbokk lay xar yi ne na la fonk na la dama ba nga rend ko sa loxo bii bu ko bu bind ba xamal ko ne ko rend dana ci ñi nga xar hit bok na len bu dor ko fa Cheikh Ibrahima door koo fab defaral ko bopum hmm. sel ko bam wo mu def ko def mu sel def ko ci ay sa koy sa koy ndima yu rafet dor wutaat yenen def ci tubaab bi yónnee ko. daanaka hmm. correspondant bi jafé jafé rek tubaab bi dana fexé bo moom bu jàppandi. Hmm. waaw lepp ci xelam mu rafet la ko da defee. ku na xam itam. Limu, limu li mu suyee ci liggéeyu suñ Modou Moussa gannaaw bi mu noppee gis sëriñ bi nga xam nga moom kere bañ dajee bay waxtaan ci mbirum sëriñ bi mag ñëpp daje fii loolu nga wax léegi rek ñoom bennoo gi ak séddante gi dafa ëpp ndax bi sëriñ bi ñëwee Touba moom kenn wax ko ko ci saayir da ko xam ci baatin rek waaye kenn amut ne ko bi ñëw na Touba hmm. waaye nag ci biir ay bis googu la ñëw seet siñ daabu Dramane naka fekk moom bokk nañ ñi gën a bokk nañ daara te ñu mu gën a xaritool gën a mën a wax ak moom la mu ne ko li xew di ñun ñëpp xamandoo nañ ko ana nu ñuy def nag moo tax ma ñëw naka ah, loolu xam naa li ci baaxoon ma dem gis suñ mbàkki bi suñu bokk waxtaan ma ah, waaw jot na de suñ daam ne kon danga ma fii nekk ma dem gis suñ mbàkki di fekk suñu mbàkkee gédee wax ko ko suñu mbàkkee ne ko waaw moom day man maa leen ko gën a yàkkamti ndax dafa am lu ma santoon damaa waxoon ne boo ma noppee gis loolu ñoo xam miraas nañ ko teel a def te mënuma ko def te demuñu fa te mënuñoo dem bàyyi ñi ci des kon li gënoon ñun ñëpp ñu daje benn yoon waxtaan xam ni ñuy def suñu mbàkkee ne Cheikh Ibrahima ne ne sëñ ne sëñ ne ne ne ne sëñ daam hmm. nañ ànd ñëw sa kër ndaam seex sëpp daje fa ñu waxtaan hmm. sëñ daam na ko loolu sëñu ma ko ndax yaa ma gën a jege sëñ Tuubaa te yow la jiite doon ci lislaam ci sëñ bàgg na ko waaye yow yaay sama kilifa ndax yaa mag hmm. te xam naa fi la sëñ bi tegoon ma ne ko ma ne loolu biñ ci gàngee lu yàgg sëñ bàkki ne kon naa ñëw ba Daaru Xuddoos këru Daaru Xuddoos gi yow nga jóge ndaam ñëw fi ñu tase fi ñun ñëpp kenn bañ a morom waaw hmm. loolu mënees na ko mu ne kon boo dee nga wax ko seex bi waaye nag nañ woo mboolem ku seex si bu kenn des. wala hmm. rek seex bi dafa wax wax ju am solo mooy bi ñu dajee ba seex sëpp dajee kenn desut suñu bàkkee dana maa leen wooloon bëggoon nu bokk waxtaan nu ñuy demee njariñ ndax xew bi ñëpp ko déggandoo. Hmm. te man nag dama sasu te sas mooy dafa maa dénkoon ne ma ba ma noppee gis loolu ñoo xam ménage na ko teel a def Cheikh Ibrahima daal ne daal di gaaw dagg wax ji ne ko ah bu sa suñ Bàmba dañ koy miraasa ah. suñ Bàmba day nit bañ di ko <laughs> waaw moom kay waaye nag ndaga melaw nit lañu woon ba ñëpp koo gis ñu jaarale ko fi ñu jaarale rek xam ne ñu du nit mm-hmm. te lii dama ko santoon mu mm-hmm. ne ko jàng miraas yeen ñi jang nuñ koy defee nit bu nit bu fi tut nuñ koy miraase ana nuñ koy miraase voilà dañ séddale alal ji mu ne alal ji ñu koy moom ñu koy donn hmm. mu ay doom mu kon wax ji jeex mu dul saanu moom c'est amaa ñu dem fenn mu kon jërul ok nga wax ji koy alal mu saanu ab dem ba di Cheikh Ibra Fall ay doom dikkeem moo rawi mbakku rawi doom toppi waaj leen mooy pexe mas nay xibaar ak jëbbuloom bay wax ni yàlla ko moom moo ne ko bamba moo moom rasi ko jox say pexe tegtal ko yoon wa am murit biraw baraw pexe murit ba am ngërëm bari murit tuduri ree di teex mu daal di dem ba Dakar ngir dëgg Bamba di fa xaar seet na sëriñ tay ba Dakar ci njàng lay xamee pexe mu tëdd ko di lis ci xaar ba mu xëyee ba tis baar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram gawan ko ay pexe Maxtaar Touré nga yari gaar yónni ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yónni ko ca Buur Cheikh Ibra topp cay pexe mu gis fa Cheikh Adama Gueye sànni mbiram daal di cangoy mu war ko bamba mbër mu rëy sëriñ ko foo fexe mu wax ko tegtal fa moom sëriñ bi wan ko la fa moom mu xam ne gis na ka ko moom mu daldi fépp biram joxe mu soob ba far leen bambaane kii xëpp na leen leeram yu rëy na leen fu mu toll xol bay nux nux wax naa ne kon tuuti ma dem fekki sëriñ bëlam biram ba kenn du mos ci baatinam lu def ca bis ba nuy texe la dara dar ba ca Dakar jàpp gannaaw yoonu saxaar mbër mu fi rëy bañ naa lakkaar Cheikh Ibra rëy laa pexe barakallah jërëjëf euh, Serigne Dax Samb jërëjëf mbokk yi nga xam ne ba tey ñoo ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi nga xam ne ñoo ngi koy amale fii ci kër Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Soxna bu moom Serigne Touba Khadimou Rasoul lépp rek jëm ci dund ak jaar-jaar yi maam Cheikh Ibrahima Fall ak seere yu rafet yi nga xam ne ñi mu àndaloon ci Serigne Touba daanañ ko ko seere te nangul ko ab cëram ci Serigne Touba waaw am nga doy na sëkk rek ci ñim ñim sëriñ bi ci liggéey bi ku mel ne sëriñ Mbàkke Buso am na ko tegoon lool seddu ko te bàyyi ko bokkuñu aw yoon am naan waay mm-hmm. waaye am na ku mas a ñëw ci moom ne ko man de sama mag dafa faatu te bàyyi fi ay njaboot ak soxna te bu ma leen jëlut danañ tumuraanke te fekk na ma ak ñeenti soxna ma ñëwoon nag yow mi mufti yoon wi ngir nga àtte ma mu ne ko ana kan ngay siyaare ci fere yi mu ne ko seexib mu ne ko da ngay dem ca ñoom ñu àtte la ndax yoon wi dégg géej la

Cheikh Ibra tuddee ko ñu bari. Mm-hmm. waaw te buñ masaa tasee doo xam ne Cheikh Ibra am na daraja wala wala kilifa la sax li mm-hmm. barke bi bari bari fu ñu tasee rek la la koy xamal mooy dañuy songo mm-hmm. <laughs> dañuy songo ba kenn daani morom <laughs> ñu doon mën a waxtaan ba ci yoon wi mujjee gi sëñ daam jaar fi jëm Mbàkke jëm Tuuba jëm si Tuuba sëñ bi la yàggut ñu waxtaanee ba muy dem ba muy bëgg dugg ci oto bi da ko ne Abdourahmane mu ne ko Mbàkke mu ne ko war naa ba ngoon te soxla naa ndogu de mu ne ko fas yàlla kero bi liggéey di tàggee Cheikh Ibra sëñ daam kaamil bi ma ko fekk mu tiim daa daal di wax ñi fekkee woon wax jooju ne leen xam ngeen keroog bi may wax lu mu ci jubloo lu ngi leen mën a ko dama doon tàggee boppam ndogu la ma waxoon nag mooy téeméeri kaamil yi ma sasa won jangal ko te kaamil bi ci des léegi nañ ma may bala ñu ko ñu nek ma àggal kaamil bi doon <laughs> eh, kon àggal sëñ bi moo mel noonu àggal bi ñoo mel noonu koo ci jàpp rek da ngay def ni ci ñoom rek ci mom rek la señ bi ko coobareem boo yamon ci mami Cheikh Bàcc mi da ngay def ne ñom defe na ñoom rek la suñ bi defal dara. xam jaar ñoom jaru fa kenn. Moussa bu la waxee si Ablaye Diané maam nga xam ne am na kenn ku bokkutoon ci yoonu murit koo xam ne. ngir won won kooka mbirum sëñ bi rek. ba mu ko tàggoo dem màkk dafa dana dana ci ci man lay xamee sëñ bi. kooka dem na màkk ba dellusi. julli gum julli rek gis gis sëñ Ablaye Diané ci wetam ñu ànd julli ci. ca màkk te sëñ Ablaye yi fii di ko bu ko laajee ñu ne ko sëñ Ablaye tukki wutoon da <laughs> nga xam ne loolu parce que te ko te kooku def jëf jooju war maa loolu sëñ ba àgg ci tool bi muy bayal sëñ bi sax du ci soli daal kon noonu ay junni junni junni yu mel noonu ñoo am ci biir yoon bi nga jënn jëmmi seex bi lañ fab di ci waxtaan waaye defaru sëñ bi mel bi nag moom fi mu wuteeg ñëpp mooy dafa teg sëñ bi foog kenn tegu njabootu sëñ bi it te yàlla mayoon ko ci it xam-xam boo xam ne mosuma gis ku mu ko ci may. ndax am na ku ma sa ñëw ci moom ne ko sëriñ bi bi waajuram. waaye ba mu ko ne yëkkit ba teg ci kawam. da ko naa yow mii nur nga doom nga tooy. ah waaw. waaye ba sëñ ñëwee borom mbir bi. sëñ bi ko na xam ne amutoon jëm. waaye ba mu ko yëkkatee ci kawam rek da ko ah gan de sa poids bi diis na de. yow de suñu bambaa la jur yow. Eh, xam nag am na yeneen yeneen nu muy xamee sëñ bi nu mu koy yëgee te gis nga soxna sëñ Bousso bi rek bi sëñ bi nekkee Mbàkke bëgg ko toxal si boobu mi ngi mi ngi naawel yabal na ay ndaw yu bari mënuñu fexe ba andi ko waaye Seex bi dafa yabal Seex bi Moustapha de waaye bu ñu jubee dëkk bi rek la ne jarut may laajte xeeñ na ma xetuk sëñ bi xeeñ na ma fii la ne <laughs> ci la ko indee moo ki bagaasam mu rafaatale ko kër kër gi si mbusoo bi <laughs> mu jàppale it nag waa kër sëriñ bi rawatina sëñ Modou mi nga xam ne moo ci mag xam nga musaa sëñ Moussa ka dana ko di junj mag mag ñekk mag mag ba Bamba nga ba naan mag ñëpp dem moom ma ne moom mu ne fa mm-hmm, mm-hmm. <laughs> mag dem mu mm-hmm. mu bawal dafa kër gi bawal nay di rooti de wala booleeg liggéey ko jox lu bamba wax mu di naaw fóorim ci sant saaw naa ko da ngay deltu gannaaw jàngal ma rek doom pexe kan nag loolu xëy na ñëpp bëgg sëriñ bi ñëpp ñëpp ñëpp jeex ci sëriñ bi ñëpp sëriñ bi jaral lu ne lim leen def ci sëriñ alhamdulilah oh. wóolu wóolu wóolu la gën a def murid yëpp sëñ bi ndax ko xam lislaam xam ponk julli ni mu toll ci lislaam nga xam ne dañ naan ko julliwul lii ko julliwul laa te loolu lépp di loo xam ne addisa koy indi mu leer ñi xam la jatege koor noonu yooyu yëpp nga man koo teg fii te wóolu sëñ bi tax waaw bari woon na koo xam ne boo ko ne woon jàppal sëñ bi te bàyyi julli du ko ñeme waaye def ne bu ko bàyyee day daal dem sawar defe ne sëñ bi doyut doyut si koo wet waaye mën a doy lu bi wëlis lépp nag te wóolu siñ bi tax loolu it meneen mbir la moo xam ne ku àggul fa moom bu ko ci yedd xam nga koo xam ne àgg nga ci wóolu sëñ bi ak maal ko ba nga xam ne bëggoo lenn lenn lu jege sëñ bi fu dëkk sax da ngay dem dëkk ca gannaaw boo demee Njaaréem ma nga Kër Cheikh bu déggee dëkk ak moom sax ndax warmaal ko bu jëmee ci moom it dana jàpp ñetti yoon ci yoon bi ñetti yoon dana ko jàpp. Hmm. sam sat la ñu ndax ndax bëgg suñ bëgg wóolu ko rek. am na. sëriñ déggoon suñu Abdul Ahad ko ci nag moom lay tëjee. nga xam ne Cheikh Ibra ku ku fiir ci sëriñ bi la. Hmm. te ku ne la nga yor ci sëriñ bi rek. ba soo dana ca laal dara. xeebut kenn. Hmm. te bañu ci dara it. ba na ko ma ta bàyyi la. <laughs> sëñ Abdou nee na dafa am guddi te géntug doomi sëñ Tuubaa nag du gént dafa gént gis Seex Ibra fekk mu gént mu ñëw ci sëriñ bi nee na sëriñ bi na ne ko defal nii sa mbubb mu def nii mbubb sëriñ bi di tibb di ci def di ci di ba mbubb mi fees yaa ngi ko waaw na mu ëmb ko nii di génn taseeg Seex Ibra Seex mu ne ko ana sëriñ bi fu mu ne mu ne ko mu ngi fii fa nga jógee mu ne ko am mu lii moo la ko jox mu ne ko am mu ne ko dama cee bëgg si yëg neen loolu de du ko mën moom mu ne ko moo ne danaa ci mos de way mu ne moo moo moon doo ci mos de nee na ñu ne ci rek di xëccante nee na mu ñoddi mbubb mi ba mujj ma ne ko ay waaj te ngaa gore li la Sëriñ Tuubaa defal lépp te nga ci am tabaay ñoom Ibra Fall goreel nee bi nga waxee ñetti yoon nag mu mel ne loo am kersa daal ne sërëx mbubb mi <laughs> waaye si yëpp nee na wallaahi bi ma xëyee sama mbubb mi dafa ras ba na fa gàkk la <laughs> ilaha illallah noonu la xëri woon ci sëñ moom bañ ci dara fekk ne la nga ci am nag dana ci jëma dugal loxo sëñ am satu mi nga xam ne nag ci aminu sayxi la sirru aminu sayxi la bokk bokk na ci li daa wax ci Seex Ibra daana wax ne ku naqaree xam la ndax nee na kuy màndargal Seex bi li ngeen njëkk a wax du julli du wor te sëñ am setu nee na den naa ma am néeg ba tey rak nee na na ma mom moom ba tey ci néeg néeg néeg bi ma dendal ma dégg ko mu jëli ñaar rakka benn bi kaamilu kaw bi téere kaw bi ci suuf na jili li am ci ay darajaam am na bis mu yónni ay ndaw jolof ci sering bi nee na bi am mbind mum bari diko ko lo sëñ am ne ko sotti ko te indil ma nee bi mu ñëwee sëñ bi fab la mu bindoon moom jàmb ko bàyyi fi li sëñam sutu bind daal di fab jambit ji jox ndaw yi leen yóbbu leen ndox mi ne ko na ko naan te lu mu ci bëgg a def ku mu bëgg a jox mbooloo wala lu mu bëgg a def rek na ko ci fas defal naa ko ci lépp jambit jooju sax bu mu ko sànni bu ko mënee defub cëwri takk ko sax na ko takk Cheikh Ibrahima nee na sëñam sutu nee na bokk na ci la ma mën a nettali ca la sëñ bi la bi fàggul Seex Ibra ci mbind mooma nga xam ne gis naa ko te ñeme koo nettali darajey xawsul xut waaw ndegam sëriñ bi nag moom ci boppam mooy mën a fàggul ak njabootam kenn ci ñoom ku nekk darajey xawsul xut kon moom lu mu doon lu mu xam Abdoulaye Mbengue asalaamaaleykum. <laughs> Eh, jërëjëf eh, mbokk yi nga xamante ne bi yéen a ñuy déglu ci dañu seetaan eh, ja jataay baa ngi noonu di jataay murit amee woon fii ci kër Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Souhaïbou ñu jaajëfal bu baax a baax Serigne Fallou moom Serigne Aliou Fall